man euh, fi may interpellé Abdou Sall mooy accueil bi nga xam ne mm. réservé nañ ko démb Ousmane ko fëlee te ndongo yi nga xam ne ñoo nekk ci ICAT ñoo ko ko defaral ci mbégte bi ñu am mm. ak li nga xamante ne noonu lañ ko teeroo ci ay woy ak niñ ko tatagalee sa xalaat ci euh, côté boobu yow en tant que ndongo mm. mm-hmm. waaw coro euh, comme ni nga ko waxee donc je pense que démb ñëpp suivre nañ ko mm-hmm. université démb wala salle UCAD bi démb UCAD 2 bi démb foo sànni mbatt mu takk. voilà mm-hmm. je pense que démb bëri na étudiants yoo xam ni sa xam naa ne sûrement añuñu. Mm-hmm. que teel nañ dem teel na fees voilà et mm-hmm. donc loolu nag jàngat yi ñu ci mën def bëri na. mooy que tey jii ñëpp xam nañ ne étudiants étudiants yi participer nañ tey jii ci changement bi nga xam ne am na aujourd'hui au niveau du Sénégal. d'accord. Euh, processus bu étudiants yi dañ ci participer bu baax a baax a baax. Don soutenir Ousmane Sonko le parti passif, don xex ci combat yi ba tay ji aboutir à un changement de régime mhm. donc kon nous, buñu démé ba tay ku ci melni président Ousmane Sonko comme nous l'avons koy dafa en tant que président du parti passif. Mhm invité aussi un leader politique boo xam ñom ñaar ñoo xaw a ay idéologie borom mm-hmm. Afrique insoumise. voilà. Euh, France insoumise voilà France insoumise. bien mm-hmm. vrai que peut-être am nañ ay discord mm-hmm. discordance. mais bo xol seen ay idéologie dafa am ay ay mën nga ci def ay parallélisme quoi au fait. donc bu ko amee gan bobu noonu. <coughs> préféré yóbbu ko ICAT loolu tamit c'est un choix stratégique. parce que peut-être mon na ko woo siège Pastef wala sax mu dem ci benen benen benen salle. endroit beneen endroit mais dafa préférer dem fi nga xam ni fi la ñuy former les élites du Sénégal muy université Cheikh Anta Diop de Dakar ñu war fa amal aussi benn conférence comme ni nga ko waxee mhm. étudiants yi tamit mobilisé wu ñëw déglu leen li tax étudiants yi mobilisé wu peut-être yaakaar la bu ñu am aussi ci Ousmane Sonko parce que dañ ko bëgg seen bopp mhm. mais occasion la aussi pour ñu jàkkaarloo ak moom pour wan ko seen contentement ci changement bi am mhm. parce que tamit nekk ci ñi nga xam ne ñoo nekkoon ay victimes ci li fi jot a xew ci régime bi. Mhm. régime bi fi jógee. Mhm. donc loolu nag je pense que occasion loon pour ñoom pour ñu wane ko. mais conférence bi tey jii lañ fa waxee lu ci bëree bëri bëri je pense que ñi dañ ko bind. téere sax mën na koo bind dafa bëri lu ñu fa wax. Mhm. sujet yu bëri tey jii ñu bëri dañ ci doon commenter rek mais dès que ñoom ñaar ñu aborder ko rek am ci sax des fois ñu am ay discorde kii ñoo di fii kii ñoo di fi. dina tax ku ci nekk mën a tirer une conclusion. mën a xam mbir yi naka la naka naka la war a demee. Mm-hmm. en tout cas daal étudiants yi moom boo leen xoolee xam ne ñii contentement dëgg-dëgg la amoon la amoon démb. Mm-hmm. parce que à chaque fois ñu ngi wane seen seen seen mbégte ñu ngi tàccu ñu ngi yuuxu et mm-hmm. di jubilé di wane ne vraiment lii lu ñu yàgg lu ñu yàgg bëgg la. am na solo alors euh, bokk na ci parti yi nga wax comme ni nga ko waxee na li ñu mhm. mais umpale wuñu tout à l'heure mhm. ngay mi ngi wax waxum France mhm. te xam nañ ni démb euh, li nga xamante ne mooy euh, discours Ousmane Sonko tudd na ci nga di Emmanuel Macron ba accusé ko que ni moom moo dooleel ki nga xam ne di président ba fi nekkoon Macky Sall ci combat yi nga xamante askan bi doon ko doon dund ci Sénégal mooy événement yi nga xam ñun ñëpp umpale wuñ ko moo depuis 2023 ñu ko doon dund 2021 autant moi autant pour moi ba 2023 mu donone mbir bu metti ci jaay doole peut-être bi ñu doon jaay doole nga xam ne euh, le PM wala bok euh, président bu parti euh, PASTEF bi mom dafa indexé directement ki nga xamantene modi Emmanuel Macron nekaw carrément mom lay waxal et que lepp lo xamantene ne na ci diggante France. ak Sénégal ci jamono yoyu ma len di wax Macron amna ci responsabilité bu mag a mag ndax mo dolel président Macky Sall. waaw mom da passe consigne parce que Macron si na ci déjà bi président bi génnee mom Macky Sall Macron da ko nommé félicité ko récompenser ko jox ko poste bo xamné ne fa du poste africain de. Mm-hmm. poste France la France dafa yag am ay valets fi Sall je n'ai rien contre lui. mais booy wax dëgg rek waxal yàlla tax. Mm-hmm. Macky Sall ami France la dafa bëgg France raay bi ko waa France jox mosuñu koo jox kenn fii. Mm-hmm. te boobu assemblée rek la nekkoon. CRA de la légion d'honneur français bi ñu amee seen Charlie Hebdo bi moo fa njëkk dem te pourtant am na africain yu amoon ay problème yu bëri te mosu ci déplacé wu dem fa loolu ñëpp africain yëpp xool di ko métti lu la. Mm-hmm. te ku ne xam nga ne France Macky Sall. président Côte d'Ivoire bi nu mu euh, Ouattara. Alassane Ouattara Alassane Ouattara. kii di Idriss doomu Idriss Déby bi. Mohamed Mohamed Déby mais ni waa France lañu doo leen laal parce que ñoom seen i intérêt lay poursuivre. ñaata société française ñoo fi nekkoon ci régime président Macky Sall ñu exonéré leen lépp bañ nañ ko ba seen fiscalité sax daaw ñu ko fayee fii fële lañ ko daan fayee ñoom président Ousmane Sonko bu ñu ñëwee dañ na lii day dañ. Mhm. man li tax tay président Macky Sall ma contre ko xeex ko pour mu dem du France ak li nga la histoire des tirailleurs sénégalais lolou mu luma ma la da len a lañ fi le président Amadou Ba pour def candidat au France mais dafa échoué mhm. tay France bu sen pexé Ousmane Sonko ak président Diomaye duñ fi fal. c'est sûr mais Sénégal ñom ñoo fal jeunesse bi ak population sénégalaise ñom ñoo xol sen choix ne ren mom ki la mais ku ne xam nga ne président yi fi nek yëpp bo après les élections do tok mukk 3 jours wala 4 jours jëloo avion dem France lan mo tax ñu tok les bras croisés premier ministre demul président de la république demagul ñi ngi toog di leen sétane man sa bokk na si ne bu ñu demagum dañu bëgg suñu digganteeg France mu nek dëkk bo xamante ni ñu wa Allemagne considérer parce que France la France a été construite par la sueur et le sang des Africains France Rangonium, Afrique ak Afrique ak Afrique c'est lañ tabac France ba mu et je pèse bien mes mots en commençant par l'esclavage euh, la colonisation les tirailleurs sénégalais deuxième guerre ba monopoliser ressources ressource, ko téye économie

ñu faagaagal ko rey fi fanweeri dameel ak ñeent ñaata buur buur bu am 60 ans ci Sénégal amul France rey na la. ah bon oui je pèse bien mes mots du Faidherbe dictateur rendi suñu histoire ak France dara mosu fere Samori dem nañu ba euh, euh, ki nga xamante ne Jéeri Jondee la Fall dernière avant dernière damel di Kayor loxoom la ñu jël ak bopp ba jël dem ba Cees samp ko noonu lañu def euh, Moussa Molo Dramé dem def ko Mamadou Lamine Mamadou Lamine Dramé. Il may des donc suñu histoire de France dara rafetu ci bi da ay nit dajale leen donc France képp qui ko bëgg raxas ba gens, c'est parce que tu es égoïste et tu n'es pas un Africain Maintenant, nag rupture boobu ni may koy waxee noonu la Sénégalais di waxee man qui ci gën a les mooy mbokk leen hmm. ci Des ci donc France suñu nous ak ñoom ñun li soxla ñu jàpp ñu comme un état souverain ñu taxawee fële lépp lu ñuy traité di ko traité ak Nigéria mu nekk pays anglophone ñu traité ak ñoom de cette façon et puis nous ñoo nam président Melné comme Paul Kagame mi fi doog sax président mu ngi foofu jamono Nigéria président Diomaye Diomaye waaw dem na Nigéria dem na Nigéria dana dem Nigéria parce que dafa seeti ay mbokkam ba tey ci suivi boobu la nekk mm-hmm. na ignorer France France dara boreetuñu ak ñoom lu le français CFA et son objectif mooy dinañ nous ci donc ñun nous ak France si ko ci histoire nga teg nous ci suñu les nous ak sëriñ si les rafet nous digganteeg avec yi mosul rafet ci colonialisme Moussoul rafet. Madame dañu meloon comme nous dañoo jël benn dëkk en otage seen par génération par génération mais nouvelle génération Ousmane Sonko il faut qu'on arrête parce que amuñu complexe dañu décomplexés..! mais ñi fi nekkoon c'est des complexes dañu dañu dañu ragal tubaab yi dañ leen rus dañ nañ ko ba lu ñuy jënd keneen di ko jënd tubaab bi moo leen wax jënd leen fii ci accord accord français xool nga or onze accords coloniaux yu ni France jëloo lu mel noonu lakk la ko nit mën a toogee di ko nangu ñu la koy signal sa dëkk mm-hmm. dem na ba partenariat bépp booy def beneen pays anglophone ak ku mu mën a doon da ngay jaar su ñun pour ñun ñu avaliser ko nga mën a dem sa monnaie ñu garanti ko yow demal France tey joxe fa billet français CFA te ñoom ñoo koy fabriqué à chamalière

donc France n'est pas sincère du tout te buñ ci doon gën dem ci waxtaan ma di len tégal yu palpable Duma nak anti français Duma raciste aussi mais politique France en Afrique dama bok ci ñi koy combattre pour à ce que mu nek état à xamné lepp plus lu ñuy def ak ne mu nek gagnant gagnant comme ni ko Ousmane Sonko di waxé. d'accord merci beaucoup alors monsieur Diouf mu melni où la won woni